ngay dem salam alaykum wa mama kura maki allo allo wa mama kura wa Zeyna la VIP people dans sa so discute wa Zeyna maa ngi lay nuyu di la ziar nama naa la Abdou Nguer mu ngi lay nuyu non Abdou Nguer yeen mom Abdou Nguer ne ne ko ne ko bu ñuy wàccee dëkk bi hmm <laughs> a ngi toj dekk bi la lay wax ni yeen rek lay seetaan kenn du stressé machallah allah ngi en direct no gisee actualité bi ah xanaa bëgg dëkk bi ñu dal rek. Mm-hmm. dal moom ku ko waxul sénégalais yi actuellement nii. Mm-hmm. acteuru politique yi ah, su ma la mënee wax ni ay naankatu deret lañu. Mm-hmm. sénégalais yi ci boppam xamuñu actuellement naan lan moo xew léegi nii. mais il faut ñu dal. te xam ni Sénégal ñii ñëpp a ko bokk. Mhm. président Macky Sall li mu war a def Sénégal yëpp def na ko jaraakoor rek lañ koy wax. jërëjëf rek lañ koy wax. gisuma nag lan moo war a tax nag sénégalais yi bëgg Macky Sall dem te du sénégalais yi de. Mhm. opposition bii la. Mhm. ñi baax ci réew mi yëpp. présent présence Macky Sall indi na leen ci réew mi. ndax lim fi defar. président yëpp baax na mais ay Macky Sall da a gën. Mhm. ndax dafa def ñu gis. Mhm. Euh, puusal ma toog nag dafa yomb lool. Mhm. mais dama bëgg Sénégalais yi bàyyi seen xel ci seen bopp. li may wax dama naan leen. man day kura. damaa bàyyi sama lépp ñëw euh, ñëw Sénégal gi ñëw jàppale si. sonn mm-hmm. ma dundeewuma politique mm-hmm. Dakar gi bu ma fi toogee sax damay yuus sama xaalis Amérique mm-hmm. di ko def doomu aadama yi Abdou Nguer laaj ko wóor na ko ni ba ma duggee ci politique sax la ma mënoon ci social mënatuma ko dama daan social ba xam ne man damay social mais dama dem ba ma duggee ci politique mënatuma ko mu bari nak ñu feet lool ma ngi ñew seen kaw di fébaron feebaroon hmm wa Benno Bokk yaakar lay waxal ak APR xam nga lu ñu wara a hmm genn campagne ba seen ruqu kaña yi ñu hmm Amadou Ba mom la ñu Macky Sall la jox gis nga man ay waxi constitution ak ay waxi président Macky Sall ñom xam nañ li ñuy def man réew mi lay wax actuellement hmm nan la ñuy def ko sénégalais yi mhm. ëppi seen bët yi di xool mhm. bu nu gisul nga fekk leen fu ñu toog bokkil leen seen bët yi ñu déglu xool te xam ne Macky sàll mhm. yàlla jeexal na nguuram avril lay doon mais li tax mu toog di defaraat mhm. bu ëllëgee dama bëgg lii nga dencal ma ko bu ëllëgee mhm. dina la woowaat ni la lii a taxoon ma doon la wax tey sénégalais yaa ngi ci guutagu kenn musut a gis ci àddina e ñun mhm. ñun ñun ñun ñun politique taxuñu ñoŋ ñun waxuñu rek pour politique waxuñu rek pour dañu ànd ak Macky Sall dañu ànd ak moom ci njëriñu réew mi te Sénégal jaxasoo na Zeynab Sénégal xol yi féewaloo na mhm. ñan ñoo ko andi opposition bi ñoo indi féewale xolu sénégalais yi yàq xolu sénégalais yi ñaan gi doon nelaw ci sénégalais yi ñu la koy nëbb ñu ne ko bu xette ko sa kanam mhm. come on Senegalese people wake up it's time to wake up dafa jot pour ñu yeewu mhm. dafa jot pour ñu xool ku ñuy nax dafa jot ñu xool ku ñu bëggal ak ku bëggal seen bopp Mm-hmm. man li may li may li may li may wax nii. Mm-hmm. waxaluma ko sama bopp nee naa leen man sama ndey dee na sama baay dee na samay doom ñanga nga Amérique. Mm-hmm. xanaa du kon foofu laa dëkk. barki arxuraan bu xoolal bu jeexee fii damay delloo di dawalaat sama taxi di létt di def sama commerce di mekk moom ma ni bi may mekk ensemble kon li may wax dëgg la dama yéene Sénégal. dama yéene Sénégal ku dal moo war a yor Sénégal mhm. ku tey ku xam li nu yor lan la coow li coow li lépp sëy naa pétrole bi moo waral lii lépp lii lépp mhm. sàll xam na ni mhm. mi ngi mel ni nga teg benn nag bu dee tan wàcc ci mooy pétrole bi ak opposition bi ak ñi am ñi am ñi xam-xam ne ci réew mi xam li may wax man Coura Macky lan la fan yëpp maa ngi na teg su ma jógee su ma jógee du baax ci ñoom de mhm. dëgg bi laay wax de nañ ñu dimbali mhm. nañ dimbali doomu sénégalais yi te déglu président Macky Sall Macky Sall wutatul xaalis hmm. Macky Sall wutatul dara bu dul ñu seef billaahi lu seef pour ñun ñun sénégalais ñu seef ñii dañu jaay pétrole bii boo leen xamoon li muy yëngal ci Sénégal ñoom Atepa Goudiaby bandi cerveau yi. Hmm. caga bu mag boobu moom Atepa Goudiaby man maay wax de man la Koura Macky bandi bi. Aline <laughs> Aline nan la paa beneen bi bugguma xam turam. Aline Tine. Aline Tine wuyu naankatu deretu Sénégal yooyu ci Sénégal la ñuy dund Sénégal nañ nit ñi yeewoo Aline Tine li mu am. des fois bi li mu am. Mhm. Sénégalais yi nuy dugal ci yii amuñu ko te dama ne. Mhm. li ma lay wax ne am na journaliste yu bëri yu ko xam. Mhm. Sonko mooy négocier. Sonko mooy négocier ak président Macky Sall. Atepa mënul dem ci Macky sàll te Sonko yëgu ko Sonko Atepa mooy baayam déglu bu baax li ma lay wax xam-xam laa lay wax de. Atepa mooy baayu Ousmane Sonko du dem ci Macky Sall di négocier. Mhm. danga may invité ma ñëw tojal la yax bi wax la ku demoon. amul benn problème ku yóbbu lettre bi. Mhm. nañu may Macky Sall jàmm ñoom ñoo bëgg mu toog. Mhm. kuute gi ñu dugal seen bopp mënatuñ ko génnee. dama dëkk ci dëkk bu mag boo xamante ne ni. pétrole rek la ñuy dox. pétrole rek la ñuy dox wax nañ ma ni ma. Mhm. Sénégal nañu moytu. Mhm. suñu moytuwul. Mhm. di ngeen rëcc lu bari ci àddina. wallaahi dëgg la. di ngeen rëcc lu bari. ñetti nit ñoo xam ne bokkuñu kenn fi nga dëkk ak sa moroom ku ma ni la senegal dafa am pétrole nga ni ma ndax seen wërsëg la ndax seen wërsëg la. ñu def lo xamanteni ni nak mhm. yow dang may invité ma tok ma tojal sénégalais yi yéex bi. man amul problème Mama koura Abdou Nguer dafa melni dafa am lu mu la bëggal a laaj Abdou Nguer nee na ma jox ko mu am lu mu la laaj. jox mu ko mhm. allo honorable député. Abdou Nguer. naka mu yaangi ci jamm di contane ci yow di le sa xel xalé nga wayé bu la mag ñi déglu woon dégg dëgg. Abdou hmm. Nguer est-ce que ba xam nga ni dama la fan <laughs> <laughs> merci beaucoup dama bëgg nit ku am xam-xam di wax. jërëjëf di la déglu diko ko nangu. Mm-hmm. amul kenn ku nekk ci candidat yi. Mm-hmm. confirmé amul kenn ku nekk ci candidat yi ku la ko xel yow yow Abdou ma sha allah fa tabarakallah. jërëjëf neexalu ma ta xam nga ma yow. <laughs> ta wax ji dafay rafet neex dekk dégg. Mm-hmm. amul kenn ku nekk candidat ak seeni i jigen ba xam nga ni am ñaari góor jigen yu nekk ci candidat yi. <laughs> def révélation de. dégg naa Matar Gueye di ko wax te dawul coow. ah yow ma maa ko man yëtu nag Abdou Nguer man du may waxantu dee tax. maam Matar day ko doon wax. nga am xel macha allah fa tabarakallah kilifa yu bari di leen déglu VIP people da a xew parce que dëgg gi ngeen di génnee euh, bu amuloon duma ko wax. Mm-hmm. dangeen di wax dëgg bi. Mm-hmm. keroog ba nga ne lu njiit njaaga. conseil constitution moy ndiak naka la baye ba am ñu rëcc te gisu leen waaw waxoon nañ ko de ma la déglu nga di ko wax ma Abdou Nguer tey Abdou Nguer xana da ngay fanan ci sama xel mi <laughs> parce que ñi ñi am xel mëna liggéey bëgg président Macky Sall di jappalé Macky Sall xamu man samay wax du neex dama alu actuellement ni Abdou Nguer dama am luma nakari dama am luma metti mais ma ngi leen di jaajëfal mm-hmm di wax seen xel rafet na mhm. seen xel sell na li ngeen di liggéey barki alxuraan bu ma sañoon tey jii yéen yéen a nekk télé bi gën a mag Sénégal yàlla dina ko def FM dama ko baan duma ko seetaanati yéen rek lay seetaan barki Serigne Babacar sama télé VIP people laa fay teg di leen seetaan bu ma su lu ma rate di ko seetaan te xoolal état ñëpp leen di seetaan ñi baax ci réew mi daa am daa am sax benn question moo la bëgg a en tant que député Mm-hmm. parce que dañoo gis ne xam nga dañ ne këru këru këru sénégalais yi mooy assemblée. waaw yéen a yor doole ji nga xam ne même loi yi nga xam ne ci la ñuy àttewoo ci réew mi yéen a koy voté. Mm-hmm. ngeen voté benn loi pousse ko le quinze décembre. Mm-hmm. conseil constitutionnel ne moom ànd ci day day day day day day annuler loi boobu te man nag. xam naa lu ma xam tuuti man musuma gis conseil constitutionnel di annuler loi organique. boo xam ne majorité trois cinquième ñoo ko voté c'est la première fois ma gis conseil constitutionnel addu ci mhm. mu mel ne dafay def bras de ak yéen comme dañ ne leen woon wuub sàccee ngeen ne dañ ciy ubbi commission d'enquête mhm. dafa mel ne dañuy bras de fer ak yéen moo tax nag may xalaat député yi ñoom tey seen seen réaction ci lii conseil constitutionnel def te juriste yu bari ne dëppoo wut ak yoon léegi yéen moom lan moo ci seen xalaat ak lan ngeen ci nar a def xam nga du ma wax ci turu dépité yi man damay wax dama ci wax li ma xalaat. Mm-hmm. te xalaat naa ni député yeneen yi ni man lañu mel mais nekkuma ci seeni xel. Mm-hmm. ndax man feeguma man Macky Sall rekk laa. dëgg la. Macky Sall dong laay déglu ak conseil constitution. Mm-hmm. Macky Sall kese laay déglu ndax loolu ñu dugal. man. comprendre ma ba tey ndax bañ koy dugal man nekkuma fa dama feebaroon xamuma la ca xew keroog bañ ne Karim Wade mhm. dafa am double nationalité ñu génnee ko dugal Basiru Jomaay Fay te man Sonko ba ba may dee dama koy xeex ku mu àndal dama lay xeex man kura ku mu dama lay xeex man ak yow a barke alxuraanu karim ba ba may dee. loolu moom demande sociale la. Macky Sall bés bu gracier Sonko ma ba Macky Sall àddina ak àllaaxira ci rajo laay waxee. ndeysaan. wallaahi te moom rek laa gëm mais bés bu gracier Sonko ma bàyyi Macky Sall àddina ak àllaaxira parce que Sonko tooñ na doomu sénégalais yi lu jëm nag ci wàllay conseil constitution man kura tekk laa ciy def bàyyi Macky sàll réglé li muy réglé man xam naa xam naa ki ma àndal. xamna makisal, Macky Sall xamna conseil constitution sen sen kalabante ya, xamna sen dir ka fa nek tidiane tidiane rakku ak magu Abdoulatif Coulibaly yi ndayam ak sama yaaya bokk benn baay kulu bali ak Tiijaan Coulibaly boobu moomu makai ma leen gënal Macky Sall moo ma leen gënal rôle yi ñuy joué ak yi ñuy def yëpp man kura xam naa ko waaye tekk laay def di déglu sama leader bu baax boobu ki bëggal Sénégal ki yéene Sénégal ki nga xamante ne ni. jërëjëf xam na ni sénégalais yi ñu ngi ci guute gu ñu xamut. jërëjëf mhm. man nag damaa bëgg a ngeen invité ma ma ñëw toog. non di nga ñëw di nga ñëw kay. incha allahu rabbi bu mu nekk yéen laay may émission yéen dootuma ko may keneen ndax dama mere sénégalais te lu ma wax rek actuellement ni dëgg lay doon te Sénégal ñemewul sénégalais ñemewul dëgg. jërëjëf maman Koura dinañ xool jour bu kii nga ñëw incha allah. maman yow foo nga ñëw incha allah. parce que li lëndëm dafa bëri te da ngaa war a leeral ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ma am mbégte di jéggaluwaat ci dérangement bi. merci yaay booy merci. Abdou Nguer. waaw dépité Koura Macky dégg nga li mu wax moom it. non Koura moom. Mhm. sa waay la mm, sama waay la xamante man ma bokk naa ci ñi